am na atteb sol yére yoo xam ne yu weesu dujur la kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko tere moom ci boppam noonu la daan soloo mooy du sol loo xam ne dafay muur dojor bi dojor buñ ko waxee mooy yàq bi nga xam ne moo tiim dëggul tànk bi kooku warta muuru wax na ci xadis ne ma zaada ala alkaabayni fa fi naar lépp loo xam ne dolliku na ba tiim ñaari dojor yi ci xeetu yére nee na loola sawara moo ci gën a yey te xam ngeen ne bépp bàkkaar boo xam ne dañ koy tudd tudd sawara wala ak rëbb bu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala kooka day daal di doon bàkkaar bu mag kon loolu wattandiku ko moo jaadu eh, boo seetloo sun nag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon te taxawal fi diine nekk ci biir diine ji boo xoolee seen nataal yi fi nekk nga xool seeni col da cay fés lool ne amu ci kenn koo xam ne da doon sol yére yuy watu amu ci kenn ku doon muur ab dojorom euh, daa dem ba jëmmi jamono rek euh, doxalinu tubaab yi dugg fi tasaaroo bi nit ñi lu bare bari ñu daal koy jële ci ñoom waaye loolu du sun diine du sun aada itam